dañoo supprimer live bi lan moo ko waral lan moo ko waral lii ay caaxaan ak naxe lan moo ko waral bëgguñu askan wi yeewu lan moo ko waral dañoo bëgg a duut nit ñi pikiir lan moo ko waral da leen bëgg nax bëgguñu leen yi yeete lan moo ko waral lan moo ko waral lan moo ko waral lan moo ko waral lan moo tax nit def live ñu def ko léegi léegi nii fii nii ci Facebook bi nii jékki-jékki ñu ne tàppit live bi ñoom ñoo ko dagg yemuñu ci dagg live waaye dañ koo supprimer ndax bëgguñu wax dooju jàll bëgguñu message bi jàll bëgguñu nit ñi yeewu bëgguñu lenn yéene moo tax il faut kon ngeen yërëm seen bopp nag ñu bàyyi xeebante bi ñuy dégloonte te yàlla suñu borom tax ku ci nekk li ngay def ba xam ba comprendre li xew yomb na dama ne leen audio yi yéen ko gën a dégg ojo yi ku ci nekk mën nga ko dégg seen réew da leen jaral. tegu suñu loxo si ëkk dina dem ba vaccin yi nga xamante ne nii ñu ngi koy waaj a indi fii si Sénégal euh, problème dina si judd parce que bu bis bu buñ ko botee rek président bi dina am sañ-sañu ne su vaccin yi ñëwee euh, ñëpp dinañ euh, vacciné wu ku wul mën nañ la indi jafe-jafe mënuñu dugg si biir këru kenn mais mën nañu dem ba ne suñu soo génnee buñ laajul sa këyit bi wane ne yow vacciné wu nga dootoo amati droit dem fenn mën nga jënd ñu côtelage yu demee leen def naa jaru ko. Ah, am nañu ko gars yi di tàggee xaw ma sàll ngaari lam tooro moom ba mu commencé ba mu toogee ci nguur gi ba léegi lu mu bëgg a def a na ko def. après nag Sénégal yi ñu d' mu seetaan leen ak ñoom ñu d' accord ñu mën seen ndox waaye man dama seetlu état bi ba mu commencé ba léegi. Hmm. lu mu bëgg a def lay couvre fa bay nii nii dañ dañuy wax ne réunion d' urgence ñu jékki-jékki di couvre fa xam nga motuwuñ ko. Hmm. ko assemblée. waaw hmm. jékki-jékki jàppale ah ñaanal naa na na ah, léegi xam naa ci kanam incha allah dinañ ñëw dinañ ñëw gën ci defaat ay waxtaan ndax sànq am na waxtaan bu ñu ci defoon mooy comme li ma leen wax lan ngay defee sa waxtaan ba pare nga def pour leeral pour pikiir yi jékki-jékki ñu ne tapit live loolu war ngeen ko toog ngeen laaj ko seen xel lan moo tax. lan moo tax waxuma ñu dagg sa live ba pare waaye live bi dañ koo supprimer pour li nga xamante ni si wax nañ ko ci biir live bi moo tax. bëgguñu nit ñi yow bëgguñu askan wi yow bëgg na leen duut pikiir yi bëgg na leen forte pikiir yi sénégalais il faut que ngeen yeew il faut que ngeen yërëm seen bopp il faut ngeen yërëm seen askan am naa dinañ ñëw ndax nan ko jekkee woon sànq ba wax fekk na instant yi sunum xel mi ngi fii ñi ngi toog mën a wax mais instant bi dafa am ci yoo xam dañ cee nekk mais incha allah dinañ ñëw def ci live mais li ma tax a dugg mooy dama leen wax ne live bi ma defoon dañ ko dagg waa Facebook ñoo jékki-jékki ne tapit live bi live bi eggut li ma ci jot a dégagé doon lu am solo doon luy sensibiliser di kii nit ñi ñu jël ko ñu effacé supprimer live bi ma def waa OSR supprimer wuñ live supprimer wuñ ko nekkul ñoom ñoo ko effacé waaye ñoom ñoo ko effacé ñoom seen bopp fu nu jëm ba ci wax yi sax fi mu toll nii ñu bëgg ñëw sax indil gàllankoor sax ñuy wax di jox information seen doomu dëkk ñu ne information yi bu mu jàll information bu nar a jàll nañ ko effacé xool leen bile doole bi nga xam ne moom la leen yàlla may bi leen nelawal askan wi li ñuy bëgg a def askan wi ngay wax ba message ba mën a jàll sax waaye duñ la faale waaye duñ la déglu duñ la déglu leen li leen nit ñi wax ci pikiir yi doy na Sénégal dama ni yi li leen ci jot a dafa doy sëkk li la ci wax moo am lii day rayee pikiir yi pour rey nit la rey nit moo ko tax a jóg billaahi billaahi wallaahi pikiir rey moo ko tax a jóg amut secret amut benn secret rey pour rey rey pikiir yi loolu moo ko tax a jóg pikiir yi ñi koy ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a dut nit pikiir yi ñooñu nee nan danoo bëgg aduna bi nit ñi wàññeeku màgget yi moom danoo bëgg ñu dee amulun benn njariñ nit ñi maanaam màgget yi danoo war a dee maanaam nit ñi dañoo bari ci àdduna bi ñu am limite bu ñu soxla ci àdduna bi pikiir yi loolu la loolu lañ bëgg a jël dugal ko fi sénégalais yi xam ko wax kat yëpp wax ci mu leer naa ñi président Macky ñeme wala dugal pikiir yi ndax xam na ni sénégalais yi jëliñu ko pikiir yi def nañ ci ay live lu tolloog at bis bu nekk nit ñi topp pikiir yi léeg booy def live sax di wax ci lu am solo ci réew mi sax nga gis kenn dugalal la pikiir yi nee na bul fàtte pikiir yi dégg nañ fan yi rumeur pikiir yi yéen ñëpp yéen ko déggandoo laay fër yëpp wax ci ñëpp wax ci léeg-léeg da ngay wax sax ñiy seetaan ci boppam ñoo la naan bul fàtte pikiir yi da nga wax ci pikiir yi kon xam nañ ko xam nañ ni ñun xam nañ pikiir yi pikiir yooyee moom la dem ba tey nag tollootul ci ay sensibiliser nit ñi wax nit ñi bu leen pikiiroo ay nit ñi moytu leen da doo ci forcé doomu aadama foofu ñoom ci buntu bii lan toll seen buntu bu ñu toll Macky Sall li ma toll buntu bi toll mooy buntu boo xam ni léegi pikiir yooyu nga pour ray ñu pour wàññi ñu pour ray sunu yaay yi ak sunu baay yi màggeti maanaam loolu moo ko tax a jóg léegi nag ci bunt boobu la toll nag bëgguñu ko forcer dama ni leen bañ leen dama ni leen sénégalee yi bañ leen Macky Sall dama ni leen man pétrole ba pétrole yàlla mooy maye pétrole yàlla mën nañu mayaat pétrole nit sàcc xaalis ci réew mi ak lu mu mënta toll nit kooku la mu sàcc dama ni loolu yàlla mën nañu ko mayat loolu alalu àdduna la muy jeex mais bakkan dafa foor Macky Sall mi ngi ñëw pour rey leen rey rey bu fekkee comprendre ngeen bu fekkee te ni comprendre dafa ñëw pour rey leen nit ñi am jot nag nit ñi ngeen naa dañoo am jot ñoom lii la leen ñëw pour di leen ko wax pour di leen xibaare lu mel nii ngir yërmande ngir gis loo xam ne lii musiba la musiba yi naaru raay boo xam ne ñëpp xam nañ ko pikiir yi pikiiru seytaan la pikiir yi dañoo ñëw pour rey si leen pour ngeen comprendre loolu pour ray lii moo ko tax a jóg mais pétrole ak sàcc gaz ak ay def nit mais rey nag dafa ëpp te reyuloo kenn nit bëgg a sunu mag yëpp président Macky nar ko signé ba pare ñu ne léegi ensemble ñoom léegi dañuy def benn waxtaan ci assemblée léegi ñu voté ko bu jàllee képp koo xam ni génn nga yoruloo këyit boo xam ni wane ni nga pikiiru mooy pikiiru boobu benn mu wàññi sa jur wala mu jox la feebar bu dugg sa yaram comme ni si di def nit feebar bu dugg sa yaram feebar bu dut la bàyyi te nga dee ñi am feebaru jalis dee nga xamante ni si ay mag lan ay màgget di fa nekk ñu dee ñu rey leen ñu ne loolu loolu leen ngay waree tey ñëw kii ko pour ñu mën la bàyyi pour mën a dox lii mooy wàccal suuf si lii mooy dee leen lii mooy dee leen lii bu dee doonoo daggaat live bi supprimer ko waat ngir yàlla mbokk yi ngeen déglu yéen ñiy jot a dañu ci def live wax ci sànq ñu ñëw supprimer live bi dagg ko kapit ba ñu paree yemuñu ci non ñu dagg live bi bañ paree ci dagg bi yemuñu ko dañ ko supprimer ma teg sama baaraam ci benn koo xamante ni si gis naa mu partagé live bi xaw ma daf ko doon seetaan ma xool ko ma gis ko ma yónnee ko ma ma ko yónnee ñu yónnee ma benn code code bii leen ma yónnee mi ngi nii code bii leen ma yónnee waa Facebook code bii leen ma yónnee fii laa ko jëlee ci kii ñu yónnee ma code bii code bi boo demee dugg fa ñu ne la supprimer na live bi waa di leen wax rek sénégalais dañoo toll ci ray leen te bëgguñu ngeen xam ne da maanaam dafa leer ray gi dafa leer mais bëgguñu ko sensibiliser nit ñi pour ñu am fulla ba lii duñu dal am na loo xam ne nag moom bu ñu demee ba egg fa moom bu ñu demee ba nga xamante si pikiir yi moom dem ngeen ba d'accord dem ngeen ba nangu ba ñu rey leen wax dëgg fa yàlla lépp lu leen dal da ngeen ko méritoo te jaratul ngeen di toog rek di jóg di xeer ndax da ngeen ko méritoo ndax ñu ñëw di rey seeni waajur ñëw pour di rey seeni waajur pour ñëw pour rey leen wàññi leen Pikine lii moo ko tax a moo tax kon ñoom même buñ toogee ñu ne dañuy dem assemblée ñu woote ko assemblée moom mën na woote lu ne ñu bàyyi leen ca de seetaan leen ne seen jàll mais woote boo xam ne moom mooy pour rey nit ñi pour rey suñu yaay yi ak suñu baay yi rey màggeti ne màggeti maanaam arrangé tu na Pikine ñu Pikine yoom Pikine yi daf ñu lor loolu laa dafa jar ngeen joxe seen bakkan lii dafa jar Macky Sall li muy woote nii bu jëlee Pikine bii ba ñëw nar ko forcé nit ñi Sénégalais yi lii dafa jar Macky Sall wàcc tay tay tay tay si gouvernement bi lii moom bu jàllee moom jaratul ngeen xeex dara ndax bakkan dafa fort quoi rey nit moom lii moom Macky Sall bu jàllee dama ne leen sénégalais yi amatul instant guddi yuñ toll nii ak bis yuñ toll nii nekkatul bis boo xamante ni si bis la ay waa bokk yaakaar bis la waa boo xamante ni si waa FRAPP waa France dégage waa nitu dëgg waa kii bis la boo xamante si sénégalais yëpp ànd doo dóorandoo danoo bëgg a rey seen yaay pikiir yi dafay raye pikiir yi dafay raye dañ leen bëgg a rey pour loolu ngeen comprendre ko lii moom Macky Sall ñaar fukki Macky Sall mënu leen baare billahi wallahi Macky Sall mënu leen baare Macky Sall mënu leen pikiir si yéen la des Macky Sall mënu leen pikiir Macky Sall mënul rey seen ndey ak seen baay ci teg ko ci bànneexu bakkanam ma ne la lii affaire nouvel ordre mondial la dañoo bëgg a rey sunu yaay yi bëgg rey sunu baay ku nu bëgg a rey sa baay reyante leen dem leen ngeen xeex ak Macky Sall bu fekkee pikiiram yi daf ko bëgg a forcer nit ñi ci forcer leen ko la jëm pikiir yi day reye mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam dafa jot sama gars yi dafa jot dafa jot lii bu leen ko seetaan lii dee leen bokk sénégalais yi dem leen xeexi ku leen nara a pikir Macky Sall waxuñu la ci leneen sa yi nga woote sa affaire yi ngay wooteeg sa affaire yi ngay tooñeeg yooyu yëpp bàyyi na la mais pikir yi moom boo ko defee askan bi dafa jot Macky Sall ñu dox dem pale rayanteeg yow ndax da nga bëgg a rey suñuy nday da nga bëgg a rey suñuy baay pikir bii dafay reye ñoo lànk ñoo bañ sénégalais jóg leen ngeen xeexi sénégalais yi pare leen ngeen jóg ngeen deewi billaahi dañ leen di rey billaahi pikir yi dafay reye pikiir yi dafay raye woote wunu ay ñun jàmm la ni woote mais Macky Sall ay la leen di woo ndax daf leen bëgg a rey dafa soxla seen bakkanu ndey yi dafa soxla seen bakkanu baay yi dafa soxla yéen pour ngeen yoom pour doo leen mënati am doom nouvelle ordre mondial pikiir yi ñu doon jàllale di ko laam-laamee di ko jaarale fu nekk mënta jàll tey jii dañ leen ko bëgg a forcer tey dafa jot tey ñu ne jot na par force de leen pikiir ku pikiir wut yoruloo carte médecin ku yoruloo carte boo ne war na ne vacciné wu ko vacciné wu ku si wu duut nañ la ko léegi nag lii leen bëggal seen ndey yi lii leen bëggal seen baay yi lii leen leen bëgg a forcé bañ leen ba tëdd ci naaj bi rayee moom duñ ko nangu Macky du nangu nga ni rey Macky nangu naan jaayal pétrole ba Macky signal signé yu bon Macky defal terre bi lu la neex Macky jaayal géej gi mais bakkan dafa fort Macky Sall dafa bëgg yóbbu seen bakkanu yaay yi Macky Sall dafa bëgg a rey seen baay yi Macky Sall dafa leen a bëgg a duut ay piqué way yaayooyu way wàlloo sénégalais yi jóg leen barki alquran kay la ilaha illa lii nii mooy li am dañ leen di rey de bu leen pikiru ku leen nara a pikiru dee leen jot na dafa jot dafa jot billaahi dafa jot dafa jot ma ne lii jar na ñun ñu nekk bitim réew ñun ñëpp ñu dagg bee ñibbi Sénégal ñu xeex ak Macky Sall ci pikir yi mu leen bëggeen leen di rey wallaahi daf leen di amul secret pikir yi amul sama gars yi du caaxaan pikir yi amul secret jot na dafa jot dafa jot dafa jot dafa jot mbokk sénégalais yi ñëpp jóg ilimaani sëriñ si ñëpp mbooloom doomi sénégalais mbooloom kuy juddee sénégalais muy chrétien muy ñëpp jóg leen way sama nday jot na jóg leen ñi ngi rey seen doomu réew Macky sàll mi ngi leen di rey Macky Sall daf leen bëgg a rey pikiir yi dañ leen bëgg a rey billaahi dafa jot billaahi dafa jot pikiir yi bu leen ko nangu bañ leen ba lànk makki sàll ñaar fukki nit leen bëriwuñ bu mu leen forcé pikiir yi pikiir yi moom ndax rey nit dafa foor Macky Sall duñ seetaan ngay rey suñu yaay ak suñuy baay sénégalais bu leen tiit bu leen ragal joxe leen seen bakkan bu leen naree pikiir loi bi bu mu jàll fekk leen fa ñuy wootee luwaa bi ngeen fekk leen fa ak yet ngeen fekk leen fa fa mën a fekk ñoom danoo bëgg a yóbbu seeni i bakkan dañu bëgg a rey seen waa dëkk dem leen ngeen joxe seen bakkan buñ ko naree jàllale waxuma ci leneen waaye pikiir yi day rey ci yeneen luwaa yi Macky Sall di joxe yeneen luwaa yëpp muy joxe luwaa la yoo xam ne yàq la mais luwaa bi reyaate la dafa bëgg a seen yaay yi Macky Sall daa bëgg a seen baay yi Macky Sall daf leen bëgg a duut pikiir yoo xam ne bu leen ko duutee billahi affaire nouvel ordre mondial da leen bëgg a wàññi danoo bëgg a wàññi seen doomi Macky Sall lii la leen bëggal ñi ngi dugal pikiir yi ñoom ministres yi même buñ pikiiroo ay pikiir la yoo xam ne yu leen di jox ay vitamine ay wér yooy la ñuy pikiiroo ay pikiir yoo xam ne bokk ak pikiir yi leen di duut buñ ko duutee sëriñ si tamit bokkut ak pikiir buñ leen di duut billahi dañ leen na kun ci pikiir après di ngeen ñëw ngeen gis li nga xam ne wax nañ leen ko sama gaa yi ñun waxoon nañ leen lii sama gaa yi ñun waxoon nañ leen lu mel nii bu njëkk ne pikiir yi billaahi fii lay mujje pikiir yi fi mu mujje mooy dinañ leen ko jéem a forcé ku nekk nekk ko xam ne yaa ngi fii bitim réew balaa ngaa dem sa réew il faut nga pikiiru ndax ñooñu dañuy pikiiru pour pikiir bi jeex ci àdduna bi dañ leen bëgg a rey wallaahi dañ leen bëgg a rey denc leen sunu vidéo yi denc leen sunu lii ëllëg di ngeen ñëw di ko commentaire ñaan ñii li leen doon wax nekk dëgg la ñun ñu jàppee leen ay dof ñun ñu jàppee leen ñu am jot ñun ñu jàppee leen ñu yàq seen temps billaahi wallaahi di ngeen xam ne dëgg la billaahi di ngeen xam ne ñun bu ngeen di lim ay jàmbaar di ngeen ñu ci boole billaahi di ngeen xam ne ñun Sénégal kase moonu yitteel Sénégal kott moonu yitteel sénégalais ñu ngi leen di rey bu leen dem bu leen pikiiru sunu yaay bu leen pikiiru wallaahi dañ leen bëgg a ñi ñu jot a pikiir ñi ngi nii laaj bi xam naa pikiir leen far force ku génnul amul vacciné lii Macky Sall daf leen bëgg a forcer daa bëgg rey seen yaay sénégalais yi Macky Sall dafa bëgg a rey seen papa sénégalais yi Macky Sall dafa bëgg a wàññi sunu njur way sama nday Macky Sall lii la ñu andil wayaa yooyu ku nuy wàllu ngir jëmmi yàlla yàlla nu yàlla wàllu yàlla nañu yàlla dimbali way sama nday ku ku ñuy wàllu kuy wàllu sama doomu réew sama doomu réew kañ ngeen ni kañ ngeen ni mën a ànd ak seen xel partager leen live bi wala ngeen partager ojo yi ngeen di déglu pikiir yi day rayet pikiir liñ ci wax doy na ñi ci live wax ci bari na liñ ci wax doy na sëkk liñ ci wax leer na naññ amul secret pikiir yi li ko tax jóg wàññi doomu aadama yi nee na nit ñi danoo bari ci àdduna bi danoo bëgg am limite boo xam ne foofu la nit ñi di tool lii leen bëgg màgget yi danoo bëgg ñu dee danoo bëgg a rey seen ndey yi rey seen baay lii leen am lu leen wax loo xam ne jarul ñu ci nekk fii di guddal lii lu am la billaahi pikiir yi reye moo ko tax a jóg Macky Sall jóg na pour rey leen léegi ñu ngi ensemble nee nañ xaw ma moom la ni kii bu jàllee ñu forcé leen ko dama ni leen Macky Sall bu dee ca pétrole ba duñ digal kenn ne la nañ dem ñu dox pale dem rayanteeg Macky Sall yow Macky Sall ñu rayanteeg yow Macky Sall tey boo ñëwoon tey maanaam nga jaay teer ba duñ wax kenn mu jóg jël ay xeer ñu rayanteeg yow Macky Sall géej gi nga jaay duñ ne kenn na jóg ñu dem ñu rayanteeg yow lu dul sa heure wàcc dafa jot nga wàcc dafa sa yoon mais pikiir yi moom da ngay rey sunu ndey rey sunu baay nga ñuy yoomloo ci yéen ay nit yu néew bu boobaa dañuy reyanteeg ak yow sénégalais yi jóg leen ngeen xeex dafa jot ngeen xeex ak Macky sàll mii li ngeen ko may dafa ëpp wallaahi li ngeen ko may dafa ëpp lii bu bëggee jàll moom reyante leen ak Macky Sall reyante leen ak mali leen lu mu jar xeex leen xeex leen ndax reye dafa rëy bakkan moo foor dañ leen bëgg a rey waxuma leen pour ngeen xeex ci gas ba waxuma leen ngeen dem ngeen kii ci pétrole ba wala leneen mais pikiir yi lii mooy njariñam ñëpp xam nañ ko àdduna bi amul secret mag buñ ko pikiir dafay dee pikiir yi pour wàññi njur la pikiir yi pour rey la buñ leen naree rey nag lu nekk mën ngeen ko maye ba mu des bakkan bakkan dafa foor mu wóor na dañuy rey seen ndey rey seen bàyyi pikiir yi lii la lii ku leen ko nar a def dee leen joxe leen seen bakkan barke alquraanu karim lii bu mu am ñaar fukki nit dong bu mu saraxe seen askan après dafay wàcc dem yoonam mu bàyyi leen ay doomu lafañ mu bàyyi leen ay doom yu tekkiwu dara mu bàyyi leen ay doom yu wér mu wàññi seen njur seen askan wàññeeku ci ñaar fukki nit koo xam ne dafa toog ñu dénk ko pour benn diir bu gàtt après day dem yoonam ñun ñu war a bàyyi suñuy sët war a bàyyi of avenir Sénégal ñi ngi ray Sénégal Sénégal dee na pikiir yi bu duggee tàkku ngeen alki ngeen moytu leen pikiir yi bañ a dugg na leen jaral seen bakkan jaru ko jaru ko leen ko nangu bañ leen yéen ñëpp bu ngeen bañee Macky Sall bu leen pikiir day daw res day daw coow du am saxar du xeeñ bu ko defee ndaw yi yéen ñëpp jóg leen billaahi jarul ay sax dajaloo maanaam nañ tase fa leen nañ tase gox bu nekk jóg leen yéen ñëpp ngeen jóg rayante ngir seen nday yin bëgg a rey danoo bëgg a rey seeni yaay ngeen défendre seen yaay ak seeni baay bakkan dafa foor pikiir day rayaate amut secret amut secret bu doon lu am secret am loo xam ne ñu naan di ko laam-laamee ñu ne waaw mais pikiir yi amul secret pikiir yi rey màgget yi moo ko tax a jóg pikiir yi wàññi njur ak bu ngeen jurati jur yu bari loolu moo ko tax jug nouvel ordre mondial ñoo teg seeni programme teg ko tafar force dañ ko bëgg a duut waa adduna bi loolu day dépendre ci waa dëkk ba ku bañ ne du la pikiir askan yëpp ngeen ànd ci Macky Sall du leen seen loi yooyu du dem fenn amul sax xeex bañ leen mu jaral leen bakkan ngeen teg seen bakkan barki yàlla Macky Sall tapet na dafay daw res te dafa war a tapet ñaar fukki nit bu nu toroxal sama askan ñaar fukki nit bu ñu leen taraxal yéen askan wi joxe leen seen bakkan bu laajee tey jii tey ñun ñu nekk bitim réew yépp ñu waroon wàcc senegal pour xeex ci pikiir bii ñu bañ a pikiir suñu waa dëkk ñu bañ a pikiir suñ doomu réew jar na ko lii jar na Macky Sall wàcc tey jii bu fekkonte ni dafa ñëw loi boobu jàll mu bëgg ko forcer nit ñi jar na mu wàcc waratul toog waratul toog daf leen bëgg a rey bu leen ko nangu bu leen nangu ñu rey leen sama mbokk sénégalais yi ci jàmm la leen woo Macky Sall woowu leen si jàmm ndax lii du jàmm piqûre yoo xam ne day rayaate day rey sama yaay day rey sama baay day rey samay maam day wàññi sama njur sama dëkk loo xam ne lii kun ko piqûre amul werante ni day dee léegi nag loolu ñu bëgg ko def lii moom moom li muy liggéey du jàmm kaay leen du xeex suñu jàmm kaay leen ñu xeex suñu jàmm jarul ay mbooloo sàngam na ñëpp àndandoo ilimaan sa sëriñ sa chrétien ya yalwaankat yi mbooloom sénégalais ndax lii musiba naaru laay la Macky Sall bëgg leen duut muy pikiir yi daf leen bëgg a rey daf leen bëgg a rey yéen mbokk sénégalais yëpp jarul kuréel jarul tur jarul lenn mbooloom sénégalais yéen la concerné mi ngi concerné tamit seen doom yi nga xam ne mi ngi ñëw jóg leen ngeen àndandoo ngeen ne ko Macky ku ci nekk yaa xam noo koy defee ci sa Facebook nga bind ne ko Macky Sall lii bëgguñu ko fi ku ci nekk ngeen démonstré sénégalais yi kenn nanguwut peuple bi yëpp danoo bañ mais bëgg nañ def seen tappale def seen assemblée ñëw jàllale ko pikiir leen pour rey leen bakkan toog leen ngeen défendre seen bopp xeexoo leen pour ay xeex da ngeen bëgg ay mais ay lan nar këpp ci seen kaw jël ay pikiir pour rey leen pikiir yooyu ñu indi pour rey leen sama gars yi dama ni leen loolu ngeen ànd ci ngeen bañ a ànd ci loolu loolu bu leen ci ànd pikir yii dañ leen bëgg a rey jarul ngeen ci ànd bu leen dara jaral ci kër àdduna ba ngeen ànd ci pikir yi billaahi dañ leen di rey dañ leen di rey danoo ñëw pour rey leen kon lii kon amatul ay kuréel amatul lenn mbooloom sénégalais la soxal pikir yi bu leen ko nangu bañ leen ba lànk ci naaj bi amut secret pour reyaate la ak ñoom lu ñuy def moom la concerne Macky Sall li muy wax ak ministre am ak waa këram ya nga xam ne ñoom ñoo koy wax mais loolu ñuy wax ñi ngi koy wax pour nouvel ordre tubaab nekkul pour Macky Sall lu ñu ko sant la mu bëgg leen ko forcer lim leen bëgg a forcé nii nag moom Macky Sall dong ñu néew lañ matuñu ñaar fukki nit xaw ma luñ toll ak luñ bari bari bari peuple bi yëpp leen bëgg rey lii nag na leen jaral ngeen tekki seen bakkan dama ni leen sénégalais yi jóg leen ngeen dee Macky Sall bu naree jàllale lii sax dafa jot sax mu wàcc tey jii tey mayetuñ ko ay 2024 mayetuñ ko ay élection locale mayetuñ ko ci njuuxum yi nga xam ne lépp def na ko ci mais rayee moom daf cee bokkut Macky Macky rayee daf ëpp doo rey suñu yaay suñu papa yi Macky doo rey suñu ndey yi ak suñu baay yi pikiir yi day rey wax nañ leen ko nag booy ngeen def ko seen ndopp yi ngeen wax ko seen ndey yi ngeen wax ko seen baay yi bu kenn pikiiru ngeen wax leen ñu ñaan yàlla yàlla mosal leen ci pikiir yi buñ demee ba na leen ko forcé ñu jàllale ko assemblée ne par force dañuy pikiir waa askan bu boobaa mu jóg ngeen dee barki alquranul karim barki alquranul karim ndax dañ leen bëgg a rey ku may